Comme euh, édition spéciale bi hein, Weil, la euh, ko Ousmane Sonko léegi c'est titre ñu quelle perspective politique pour Sonko ah son collègue, mun pour su nekkee dëgg-dëgg ci stratégie politique mun naa ne dix jours yi damay ut parrainage mais loolu loolu loolu loolu xel lu ko gën a garaaw Ousmane Sonko day ut parenage engouement bi mu mun andi kenn xamul foo koy natt dégg mu demee ba si cappaandaw ga mu ne pare pare parrainage yu sax mun na am ay ay jiixi jaaxa mbaay ma jël parrainage yu parrainage yu député ah ko jëlee ba nekk candidat caaf dina xam de <laughs> déggoo ma de caaf dina xam de